أيها الإخوة هذا درس بعنوان السحر وأضراره على الفرد والمجتمع mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu dolli xéewal akub cant ca yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak képp koo xam ne ku jaar ca yoon wom jaaroon la eh, tey dañoo daje di waxtaane ab tomb boo xam ne tomb bu am solo la ci sunu société mu jëm ci njëbar ak lor yi nga xam ne am na ko ci doomi aadama yi muy individu yi ak lor yi nga xam ne am na ko ci société bi waxtaan wi nag danañ ko jéem a séddale juróomi tomb yoo xam ne benn bu ci ne rek danañ ca def ay junj bi ci jëkk moo di jéem a xamle njëbar mooy lan suñ ko waxee luñ ci jublu njëbar moomu am na ay xeet yu bari lool xëy na tudd yépp dana jafe waaye ñu tudd yi ci ëpp solo ñetteel ba ñu waxtaan ci danger bi nga xam ne moom la am ci askan wi maanaam moo xam nit par nit la ñu koy tuddee individu wala ci société bi yépp ci kaw askan wi yépp ñeenteel ba ab atteem ci shariatul islam juróomeel ba njabar moomu nuñ koy saafara ku mu dal tomb yooyu ci lañ bëgg a jaar waaye ñu def benn laytaay boo xam ne ci ñaari tomb rek la jëm tomb bu njëkk bi moo di sunu borom tabaraka wa taala ci tërëliinam ci wàllu sharia ak ci wàllu rububiyaam muy moom gi moom doomu aadama yi moo di nit ki bi mu ko bindee dafa am loo xam ne sunu borom tabaraka wa moo ko warlu moom moo ko warlul boppam digganteem ak nit am loo xam ne daf ko sase nit ki li mu warlul boppam te jullit bu nekk mu war a doon ci yow laytaay joo xam ne moom loo gàtt gàtt pas-pas loolu war nga ko yóbbaale moo di ne sa dund ak sa dee ci loxoom la nekk sa wërsëg ci loxoom la nekk sa wér-gi-yaram ak sa feebar ci loxoom la nekk yooyu lu nit ki gàtt gàtt pas-pas digganteem ak boroomam war naa xam ne loolu sunu boroom moo warlu loolu salla warlu la ne diggante fa nga juddoo ba fam limité ne foofa ngay génn àdduna loo sàggan sàggan sàggan ab seconde mënu cee wàññiku loo farlu farlu ak loo bari bari ay soppe ak lu ñu bari bari ay pexe mënuñoo fexe ba dolli ci benn seconde nekk noonu noon ya ñu bari bari mënuñ caa wàññi benn seconde wërsëg wi dox ci diggante bi muy li nga war di lekk di ko naan ak fa ngay nekk ba diggante ñaari dat yooyu la fa sunu borom dogal di am loolee mu la wërsëgale kenn mënu la koo xañ mënoo sàgganit ba jotoo ca mënoo bari noon ak ñu lay fexeel ba jotoo ca wërsëg woowa munoo bari ay pexe it nag ak bari ay soppeeku yëf ba wërsëg woowu ñu toll ca lu toll ni tarfatul ayn kon loolu sunu borom tabaraka wa taala moo ko warlu ne la lii maa koy def ba noppi nag digal la nag dala demal sabablu fàggu ji te def ko nag ca la dagan leneen li ca des mooy li nit ki féetewoo dana ko demal jaamu ji ma lépp loo xam ne digal naa la ko ci xeeti ndigal def ca la nga man lépp lépp loo xam ne tere naa la ko nanga ko bàyyi kon nit ki li ko indi fii moom mu yitteem ju jëkk mooy xool li ko yàlla digaloon mu nekk ca yooya mu ko digal fàggoo nga ca biir fajoo nga ca biir jàpp ci lépp loo xam ne xeetu sabab la yooyoo nga ca biir booleeg jaamu yàlla ya booleeg tawxiid booleeg wattandiku yi ñu war a wattandiku yépp la ko tàmbalee ci bokkaale ba ci bàkkaar yu ndaw ya loolu mooy liggéey bi ko indi ci tool bi njuumte liy faral di am nag ci tomb bii nu nar a waxtaane moo di nit ki ne fa kupp la ko yàlla santoon ñëw fekk la yàlla warlu woon mu mel ni da ko ciy dimbali di def ay pexe yoo xam ne lam ci jublu mooy bëgg gudd fan ba faf di ko defee ci anam goo xam ne bu yàlla tere la kon foofu tomb la boo xam ne war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax door a départ ci waxtaane beneen bi ci des moo di nun sunuy askan fii ci Afrique euh, rawatina ci sun réew mii ndax noonu sun réew mii li may bëgg a wax nii dañu cee avancé ba di ci joxe ci bitim réew moo di li ñuy tuddee at tafsirul xuraafi li zawahir maanaam yii feeñ ci bëti nit ñi ñi koy teg ay bët lu gën a bari ci sun askan bu dee lu leen jaaxal suñ koy firi dañ koy firi piriinu lu lënt piriinu loo xam ne xel mënu koo nangu piriinu ay ngëm-ngëm yoo xam ne yu teguwul fenn la loolu ci lu tardeel suñ askan yi ci lañ bokk dañuy wax ne su fekkoon ne jekki nga ba mu yàgg nga génn ci mbedd mi di dox daje nit koo xam ne dafa yëkkati ay tànkam di doxe ay loxoom loolu lu kéemaane la mën naa taxu nit ñu bare bare bari taxaw di ko seetaan ndax mii lañu ko woon su boobaa nag suñ taxawee di ko seetaan loolu nañ koy firee askan wu nekk fa ñu toll noonu lañ koy firee dañuy wax ne soo jëloon ind bi tey nga won ko kuy def noonu koo xam ne ay loxo lay doxe yëkkati ay tànkam bu ko xoolee day wax ne kii boroom xel mu rëy la moo xam ne tàggatu na ci wàllu concentration ba mën a def lu mel noonu xam-xamu yoga ak yooyu ca loolu lay juddoo boo ko wanee américain ba tey day wax ni kii dafa tàggatu ba loxo yi am doole moo tax mu àttan yaram bi moom wàllu doole la xam boo ko waroon japonais bi tey day wax ne kii dafa tàggatu ci wàllu man-man ak xarala ak muus ba tax mu mën a yëkkatil tànkam yeeg yaramam yépp di doxe ñaari loxo ñu ne boo ko wanee africain bi dana naan kii dafa am lu mu àndal dafa am lu mu àndal moo tax mu mën lii kon ak tafsirul xuraaf yi foofu lay daal di juddoo li ko nii wax naan lu yomb lañ bëgg duñ gëstu ci wàllu xel duñ ko def ci wàllu kàttan duñ ko jéem a jëmale ci wàllu man-man ak ko xarañe waaye dañuy xool rek lu fa gën a jege te lëndam te am gën a am gummóot rek ñu ne daal kooku moom baatin la àndal wala dafa am ab cër wala daa am lu mu àndal moo tax mu man lii su ko defee loola la muy jur mooy yow doo ma sa jéem lu mel noona ndax na jàpp ne kii ak may guñ ko may la goo xam ne moom mën naa def loolu te yow may ñu la ko nga daal di toog na sax kon loolu ci li na askan wi ci la bokk Eh, ñaari tomb yooyu dama ne woon ñu laltaayoo ko dooru dugg ci biir tomb yi ma tudd benn bu ci ne rek incha allah ñu jaar ce xam naa danañ fexe ba lu gàtt gàtt ñu bàyyi lu mat fanweeri minute ci programme bi mu dellu ci mbokk yi ñu xool luñ fay dugal eh, su fekkee de dégg naa ne ci ñaari waxtu la war a jeex te defe naa ne du sori lool eh, tomb bi ma njëkkoon a tudd ci définition. njëbal boroom xam-xam bu mag ñi koy wax ibnu faris muy bindkat ci wàllu kàllaam ak arab di itam ku yàgg na ndax ci siècle yu jëkk yi ci la doon dund dafa bind benn dictionnaire bu am solo bu ñu tuddee mujamu maqayis al-lugha nee na boo jëlee baatu boo jëlee arafu siin nga boole ko ak arafu xaa ak arafu raa ñetti xaraf yooyu suñu àndee mooy saxara nee na kooku day boo ko toppee ci kàllaam ak arab ba mu jeex day dellu ci al ifsaad maanaam yàq wala muy dellu ci al xidaa mooy wor wala muy dellu ci al fitna mooy fitnaal nit ki rek comme ni ko nit ñi xamee nee boo déggee ñu ne saxarahu maanaam jabar na ko la muy firi mooy wor na ko waaye yàqal na ko waaye fitnaal na ko loolu wax ju leer la kon ci wàllu kàllaama loolu moo tax ki nga xam ne dañ koo jabar ku mën a doon fitna dikkal na ko moo tax dem na ba ci waxiin sax waxiin sax nit dana wax wax joo xam ne dana ci njabar nit maanaam wax ba wër ko ba lëmas ab xolam ba jaxase ko ba mënatula dégg lenn lu dul lii nga wax te amaana loolee nga wax mën naa bañ a doon noonu waaye waxiin jëmoo àgg ca moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna min al bayaani la sixra nee na bokk na ci bayaan ak wax joo xam ne day téye doomu aadama yi am na ci wax joo xam ne day dem ba àgg ci palaasub nekk njabar sax ci nit loolu jublu ci njabar guñ xaraamal waaye day wax rek ne wax mën naa jot ba not nit ki ba muur ab xolom ba yóbbu ko euh, bi dëgg-dëgg nag buñ génnee ci wàllu kàllaama geeg baatu arab yi njabar suñ ko waxee lu jafee définir la ndax dafa bari ay façon yu bokkul moo tax daal ñi koy taarif dañuy wax ne azaimu wa wa uqadun wa amalun fi lcuquli wal abdaan fa yumridu wa yaqtulu wa yuassiru fi ljamci wa tafriq ay jëf la daal yoo xam ne doomu aadama moo koy def mën naa nekk ay yëf yu muy bind mën naa doon ay jàpp yu muy jàpp mooy lu muy jàngat di ko wax ci làmmiñam mën naa doon ay yëf yu muy tifli di fas waaye lam ca mën a doon rek jëf yooya muy def bu ca noppee lam ca jublu mooy mu am jeexit ci xeli doomu aadama yi wala ci seeni yaram mën naa rey mën naa woppal mën naa boole mën naa taqale itam kon euh, taarif boobu wasfu la maanaam pour melal njabar la mooy wane ne euh, lu mel noonu noonu rek lay tëdde njabar nag lu am la njabar lu am la boo déggee ma ne lu am la mooy dafa am ci kuréel yi nekk ci biir lislaam yoo xam ne dañ koo weddi ñu amut eh, lu mel ne almutazila dañuy wax ne njabar su amoon kon daanaka niñ ko melale kooku day jël dara ci cërub yàlla moo tax ñu weddi ko ñoom ne amut waaye nag lu am la ndax su amul kët kon jërut sharia di ko tere wala mu koy xaraamal wala muy tëkku ko ko def te sax na ci saxiixul buxaari ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ay juif jabar nañ ko maanaam ay yahud jabar nañ ko jël ay yëf ay wëñak ay affaire def ko ci benn teen ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ay fan yoo xam ne ña doon dund ak moom xam nañ ne ci wàllu jëfeyin ci wàllu jëfiin ak nit ñi mu ngi jëfe ay jëfiin yoo xam ne bokkul woon ak jikkoom dëgg la loola laalul dara dara dara ci wax yu wàcc ci moom ndax wax yi suñu borom moo ko aral boppam waaye ca yaram wa nag ak ca ndoomu aadama ga ak ci jëflante ga ak nit ña gendiku nañ ne moom mii am nay jikko yu muy jëfandikoo yoo xam ne bokkul ak jikko yañ ko xame woon ab diir ba mu yàgg sunu borom tabaraka wa Euh, yebal jibril ak meneeni malaayika ñu ñëw toog ci kanamam mu ne waaw lu ko dal malaaka menn mi mooy wax mi ci des tontu ko ne ko ah, moom day matbuub dañ koo jabar mu ne ko fan la mu ne ko day mi ngi ci dañ koo boole daal ab jar toog ay yëf ak maanaam peñe lañ jël laxas ca ay weñ def nangam tàbbal ko ci ba ab teen ah mu daal di jàng moom jibril sóoratul fallaxi ak sóoratu naas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat fa mu nekkoon daal di yónnee ñu dem ca teen boobee setti lañ tàmbaloon ca biir génne ko ñu gis ko na ko malaaka ma waxe woon mu digle teen boobee ñu daal di koy maasale daal di koy sakk moo tax cheikh xaafisul alxakami nee na assixru xaqun wa lahu taasiru lakin bima qaddarahu alqadiru assixru xaqun wa lahu taasiru lakin bima qaddarahu alqadiru nee na assixru njabar xaqun dëgg la ah dëgg la maanaam lu am la walahu tasiru te am na ak jeexital mën naa jeexital ci xol mën naa jeexital ci yaram mën naa jeexital ci ay yëf mu ne nag waaye ci kaw rek li sunu borom tabaraka wa taala dogal laakin bi ma qaddarahu alqadiru kon daal loolu mooy luñ mën a wax ci définition njabar su ñëwee ci ñaareelu tomb bi nag mooy xaaj yi nga xam ne njabar am na ko façon yi am na njabar bu ñu tuddee ab talsamaat talsam buñ ko waxee noonu mooy li ñuy tuddee daanaka ay xaatim xeetu xam-xam bu bon la boo xam ne dafa aju ci ay secret yu ñu wax ne ci chiffres yi lay dellu su ko defee ay calcul lañuy jël boole koog turu nit kaak turu ndeyam ak turu baayam def calcul yooyee def ay xaatim yoo xam ne ay pari carré lay doon ak eh, ay triangle ak yu mel noonu ñuy calcul di rëdd di calcul di ca bind di calcul di bind ba ca xaatim eh, carré bu mag ba nekk ca digg ba ñu door caa bind turu kooka am loola buñ noppee nuñ koy def su ko defee loolo daal di jeexital ci moom kon daal xeetu talsam ñu ko waxee xam-xam la boo xam ne dafa dellu ci chiffre yi ak araf ya nga xam ne moo composé turu nit ka ak turu ndeyam ak turu baayam ak yu mel noonu xam-xam la boo xam ne ci ci juif yi la jóge maanaam yahud yi nee na it lenn ci yéefar yi nekkoon grec ci jamono yu yàgg xamoon nañ xeetu xam-xam bu bon woow yi nga xam ne lor doomu aadama rek moo ko tax a jóg euh, ñaareel ba mooy li ñu tuddee at tanjiim xam-xam la moom itam boo xam ne ci xeeti njabar yi la waaye dafa aju ci lu jëm ci wàllu biddiw mooy ñoom itam ay tëraliini xam-xam yu ñuy def yoo xam ne biddiw yi feq ak i jamonoom ak waxtu wa muy fekk ak waxtu wa muy suux am na calcul yi ñu cay def yoo xam ne dañ cay sukkandiku ngir jéem a xam ay mbir yuy xew ci kanam te xewagut te fekk ci biddiw yooyu lañ ko jëlee léeg-léeg biddiw fekk ñu ne nangam lay wone léeg-léeg mu fàq ñu ne nangam lay wane yooyu xeeti xam-xam la yoo xam ne moom itam am àtteem dana ñëw ca kanam ndax dafa aju ci ilmul gayb nga xam ne sunu borom tabaraka wa rek moom moo ko xam euh, kon léeg-léeg li nga daan dégg nit ñi di ko wax ci àll ba biddiw bu mag fekk leer naa ñi ñu ne ah, am na kilifa gu génn àdduna de yooyu nit ñi nañ ko wattandiku ndax xeeti jeexit la yoo xam ne daa jóge ci jabar yi nga xam ne yu mel noonu lañ lañ gëm muy muy walangaan ba agsi ci doomu aadama yi pas-pas yooyu tàbbi ci seen bopp te yëguñu ko waaye bindiw yi nekk ca kaw asamaan lay xew ca ñoom amul aw jeexit woo xam ne wum joteel la ak wi nekk ci suuf ñetteel ba mooy li ñu tuddee al iraafa wala al araafa wal kihaana ñaari xam-xam la yoo xam ne boo leen doon gàttal daal na koy tuddee mooy gisaane wala tëni donte nag moom ci boppam dafa am ay xeet yu baree baree bari moom iraafa wal kihaana li muy firi daal mooy jéema xam lu lu amagut wala jéem a xam lu fa nekkut kon day tënku ci ñaari mbir e, loo xam ne dafa xew fii mu nekk nii te xamuñu lu mu doon nga xam ne am na waaye xamuñu ko comme sàcc ba sàcc ba sàcc na kenn xamul ko mu doon lam sàcc itam kenn xamul fu mu ko yóbbu mu ne mën naa def ay pexe ba xam ku mu doon ak fan la ko yóbbu kon loolu lu teew la loo xam ne dafa làqu jéem a xam lu teew te làqu wala muy jéem a xam luy ñëw te ak seegut xam-xam boobu ñaar yooyu rek lay jur moo tax bokk na ci ay façon euh, bii ma nar a tudd léegi mu di ramlu ramlu xeetu njabar la moom it woo xam ne dafa sukkandiku ci ay mbind ay rëdd yoo xam ne doomu aadama mooy mooy ñëw ci suuf maasale ba àggal rëdd ay rëddam man gisaane mën naa doon loolu te mooy li ci gën a siiw mën naa jël suufam def ko ci palaat su dee béréb yu amul suuf bu dee béréb yu bari suuf loolu mën naa ñëw ci place boobu maasale ba mu jeex mu def ay tombam def ay rëdd rëddam def ay jàngatam di la wax di la wax ngay dégg kooku Euh, ci xeet yooyu ci la bokk waaye moom it dafay dugg rek ci euh, xamtu goog yi ma doon wax léegi te mooy al ak kihaana mooy euh, lépp loo xam ne daa jëm ci xamtu loo xam ne dafa dafa xew te xamuñu fu mu nekk ak loo xam ne ñëwagul mu di ko jéem a joxe am na ñoo xam ne seen façon bi ñuy jëfandikoo ci gisaane boobu mooy ténqul doomu aadama la ñuy xool am na ñoo xam ne ab kaas lañuy jël def ca ndox di loo gone ci biir kaas ba am na ñoo xam ne it ay xor lañuy jëfandikoo wala ay petaaw mu daal di jël façon bi ñuy tuddee tani tani mu bokk ci yi gën a fitnaan nit ñi ci jamono ji ñu nekk eh, kooku itam day dugg ci biir al iraafa wal mook moog muy gisaane kon daal gisaane ak tani ak xool ca kaas baag xool ca ténqalaak bépp xeet boo xam ne doomu aadama ji mi ngi koy jëfandikoo ngir wuñ ñi loo xam ne sekkare sunu borom tabaraka wa taala bu mu denc la boo xam ne doomu aadama mun koo xam kon kooku day dugg ci xeetu xeetu xam-xamu njabar am na beneen façon bu ñu tuddee ash-sha'waza wala ash-sha'baza ash mooy njugur njugur ash mooy ñeengo waaye ñaari baat la yoo xam ne li muy firi lenn la mooy nit ki jekki-jekki won nit ñi loo xam ne euh, xamuñu nu mu ko defee ba mu ñëw loxo bu gaaw a gaaw daal la yor boo xam ne day jekki-jekki rek këyit bi mu yoroon mën na koo tàllal mu doonub xaalis wala ganaar gi mu yoroon mën na koo reen di nit ñi gis deret ji toor bu ne suutu mu yëngal yëngal tegaat fii ganaar gi tàmbali di doxaat kooku kon bët yi lay jël bëti doomu aadama yi moo tax ñi ko tuddee taxyil mooy da lay won daal loo xam ne xayaal la nga defe ne xaqiqa la mën naa jël lu sori jegeel ko wala lu jege mu soril ko mën naa jël lu sax lu dul yëngu loo xam ne warta yëngu mu di ko yëngal wala loo xam ne luy yëngu la mu saxal ko kon yooyu yépp xeet yi e, jëfiin la yoo xam ne ci xeeti njabar yi ci la bokk ñeengo it e, ci xeeti njabar yi siiw ci la bokk xam ngeen ne léeg-léeg nga séen ay doomu adama yu dajaloo fi mu géew ñuy seetaan doomu aadama joo xam ne yu mel noonu lay lay jëfandikoo euh, gone yi jigéen ñi yu mel noonu ak ah, ñi nga xam ne sax miinuñu yu mel noonu wala xamuñu ko ñaare ñëpp ñeengoo li ñu koy faral di jëfandikoo muy convaincre nit ki pour mu xam ne kii boroom xam-xam la ngir mu mën a ñëw nag mu defal ko li mu koy defal am na Euh, yi ñi koy jëfandikoo bokk na ci ñi dàq fitnaal mooy sun suñ mbokki naar yi parce que bu ñu la wanee dara nga teg ci sa bët moom amatuñ ci benn werante am na waa joo xam ne fitna jim jim def fii ab sénégalais la dem fële ci jënd ab ñeengukat la buñ buñ xam boo xam ne ci famille bu buñ xam la bokk itam eh, waa ji dafa ñëw ci naar bi ngëmt yim ko won mu ne ko xoolal fii ci miir bi mu xool ci miir bi di seetaan foofu télévision bi loolu la ko woon mu teg ci bëtam bi mu noppee waa ji dafa daal di nangu ne kii moom lu mu la wax rek euh, kenn du dañ warta dañ noonu la ko gëmee kon ay ngëmtu lañ koy jëfandikoo ànd ak ne fa mu ak moom la mu ko doon wax lépp lu dañ la ndax waa ji booba suuf su baree bari su mu doon xëccoo ak ay nit la amoon euh, lii may wax nii man sama jëm bopp dama ko fekkee xam ñi ko séqoon ay suuf la doon xëccoo ak ay nit bi ko waa ji defalee Sénégal bi defalee li mu koy defal ba àggal yow dana ko boo xëyee rek yow demal sotti sa suuf te tàmbali tabax bul waxante kenn du la wax dara bi mu ko waxee loolu waa ji jox ko alal lu dul jeex dafa xëy dugg avion moom ñibbi waa ji ñëw di sotti suuf di wàcc ay xeer ak ay yëf yu dul jeex bi bis ba daataan del si jàpp nañ ko dugal ko kaso moom waa ji doon def loolu kon liñ jublu ci wan loo xam ne lu la jommal lay doon maanaam pour ay ngëmtu la convaincre la ba nga ne kii moom lu mu la wax rek du dañ su ko defee nga ñëw nag mu dugal la ci lu kenn xamul lu mu doon am na xeet wu siiwee fii ñu koy wax mankata ba li tax ñu tudde ko man ba maanaam majmuwa la benn ay ay wasaaiq lay doon ay document wala ay téere yoo xam ne yu bari njaxas la yoo xam ne boo demee ci yenn askan yi ak ci famille yi dañ koy donnante doom ji da koy donne ca baayam baayam donne ko ca maamam nga xam ne duñ bindoon denc ko ca gaal boo ko dee jàng foo lii day wax man kataba nang ku bind nangam day bisub alxames wala bisub altene boo ko defee nangam boole koog nangam li tax ma ne lu bari njaxas la mooy néew na ñu la ku bind nangam ba nopp yem ca la ngay bind nga gis ne ku bind nangam boole koog reenu sump boo xam ne alxames lañ ko gas bañ koy gas dañ koo gase faatiya bañ defee nangam yu bëree bëri la ñuy boole ne boo ko defee lii lay jur xam-xamu man katabu boobu boo ko toppee eh, da ngay gis ne lu ci bari alxuraan la lu ci bëree bare bari alxuraan lay doon waaye boo xoolee alxuraan jooju da nga gis ne dugal nañ ci lu bari ci yéelu weesu da nga gis alxuraan joo ne ay xaatim lañ ko def bii baat ñu dugal ko ca bee gee kër bii baat ñu dugal ko ci gii kër bii ñu dugal ko ci gii kër ba noppi nag bind turu nit nag ca digg ba wala ñu bind turu dëkk wala yu mel noonu fekk am na luñ jublu ci loola kooku moom itam aw xeet la woo xam ne njabar daf ciy jaxasoo leneen jaxasoo ca lu dul njabar moo tax euh, doonut lu baax moom itam boo xoolee yooyu jàll yépp ci ay xeeti njabar day dellu rekk ci ñaari bunt benn bi moo di sixrun maarifiyun sheytaani njabar goo xam ne day dellu ci ab ab xam maanaam lu nit ki di jéem a xam di wax ne lii lu ma xam la lu war a ñëw bis sàngam nangam dana aw bis nangam bis dee ngeen nit ñi nga xam ne at mu nekk danañ dajaloo ci benn béréb fii ci gox di rebatu ñeneen ne nangam dana xew ay deret dana tuuru taw bi dana mel nii dana mel nangam kon am na ci loo xam ne ci xam-xam lay dellu xam-xam yooyu ci seytaane rek lañ ko mën a askane ndax jinne yi ak seytaane yi am na lenn ci ay xam-xam yu néew yuñ sàcc yoo xam ne këleen jox sa diine jaay leen ko jël seeni charte seeni condition mën nañ la caa mosal dara nga xam ne soo waxee lenn rek mu doon dëgg nit ñi danañ ne kooku lu mu la waxati duutu dañ ñoom liñ soxla rek mooy wax benn boo xam ne nañ ko waxee noonu la amee suñ ko defee benn yoon nit ñi daal leen di gëm loolu lañ ci jublu waaye li ëpp ca li ñuy wax du doon dëgg xam ngeen ne am nañ fi ay jamono yu yàggut képp ab gisaanekat wax fii ne université bii ci ndakaaru euh, avion dana fi daanu malheureusement euh, intellectuel yeeg ñëpp fab seeni bagage étudiants yeeg ñu dul ñoom di génn béréb boobu ci wax yi nga xam ne kenn waru koo gëm ci àdduna ab jullit waru ko waru koo gëm bañ génnee ba demit tus mujj ci dañoo fabaat seeni bagage del siwaat toog avion daanuwut alhamdulilah dara xew kon am na ci loo xam ne xam-xamu ay ay xam la beneen xaaj bi ci des nag sihrun amali tatbiqi maanaam beneen bi ci des nag jëf la boo xoolee xeeti njabar yépp am na ci loo xam ne xeetu xamtu la kee daal daf ne am na xabaaram yoo xam ne am na am na ku muy jëflanteel ku koy joxe xabaar mën na koy wax fu mu toll fu ne moo xam ci gisaane la ko jaare moo xam ci bunt bu mu ko mën a jaare waaye daal moom lay liggéeyam daal mooy di wax nit ñiy dégg ñu ne ah kii de amul morom keneen ki ci des nag dafay wax ne moom am nay man-man yoo xam ne ku soxla dara boo dikkee ci moom mu defal la nangam defal la nangam defal la nangam lépp boo ko seetloo da ngay gis ne ñaar yooyu ci la jëm te lu gën a bari dañuy jéem a boole ñaar ñi maanaam ki yor li mu tuddee ab xam-xam wax naan léegi ne la ngëmtu la ci jublu day fexe ba nit ñi gëm ko ngir mu defal leen waaye su doon da di xabaar rek ñu dem kon moom du ca jëriñu moo tax bu waxee dara ba nit ñi gëm ko ne lu mu la wax du dañ su boobaa du yem ca loolu da wax ne man damaa faj nangam man a faj nangam man a faj nangam ndax nit ñi ñëw ngir mu xoolal leen loolu ñetteelu tomb bi war a waxtaane moo di euh, xataru sixr ala alfardi wal mujtama lor ju metti ji nga xam ne njibar mën na koo indi ci doomu aadama ji ak ci askan wi doomu aadama ji bokk na ci njariñ yi mu ko mën a jariñ te ci ko mën a lor yi mu ko mën a lor ci la ñuy tàmbalee moo di ba ci jëkk mooy yàq diineem yàq diineem ndax ñetti xeeti tawxiid yi am mu di tawxiidu rububiya gëm ne sunu borom képp moo mën a bind moo mën a wërsëgal moo mën a yore sa dund sooy génn àdduna moo la fi jële loolu tey dem ba kooku jël na cër boobu yi nga xam ne sunu borom képp moo ko yeyoo mu jox ko doomu aadama jooju yi nga xam ne ab jabar la wala bu ko joxul lépp dana ko ci jox lu baree baree bari te loolu doon na loo xam ne tarfatul ayni képp boo ko ci jëlee jox ko mbindeef dugg nga ci bokkaale kon kooku la muy jëkk attaqué mooy diineem ci tawxidul rububiya waaye it ci tawxidul uluhiya bi nga xam ne nit ki dafa war a gëm ne sunu borom tabaraka wa képp moo yeeyu moo yeeyoo ñu di ko jaamu kooku dana ko dugal ci sukkandiku ci ab jabar ci lépp loo xam ne xeetu faj ajo la mu jàpp ne daal ay ajo moom ay projet mag ay jubluwaayam ak la mu bëgg a def ci famille mag la mu bëgg a def ci liggéeyam ak la koy jëmale kanam ak la koy musal ci ak échec ak yooyu yépp daal jël na ko ne ko bëcc ci taabali jabar bi ne ko yow laay déglu ci loolu comme nam ko waroon a defee ci kanam boroomam tabaraka wa su boobaa jaamu keneen ku dul sunu borom tabaraka wa taala dikk na kooka nag dana ko dugal ci xeet yi lépp loo xam ne lu contre tawxid la dana ko rendiloo mu rendil seytaane yi ak jinne yi nga xam ne rendi lut sunu borom tabaraka wa taala moo xam ne yi ñuy rendi niñ ko mën a tuddee waaye jaamu xiram képp la mën a tudd mën a tudd leneen kon daal yàq diineem lay jëkke moo tax sunu borom tabaraka wa taala nee na wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim li yujaadiluukum wa in la mushrikuun nee na seytaane yi nga xam ne ñooy iblis jinne yu bon yeeg ab ab kuréel lañ bu ab armée lañ sax boo xam ne li leen tax a jóg mooy seet lenn ci doomu aadama yi di jokkook ñoom di leen jàppale di leen dimbli ngir ñu mën a ñëw ci yéen wan leen ne nun de am nan xam-xamu nangam ak nangam ak nangam sunu boroom nee na wa in ataatumuhum nit ñoo ñi nga xam ne ñoo jokkaloog seytaane yi ñëw ci yéen di wax ak yéen su fekkee topp ngeen leen su ngeen leen toppee comme la mushrikuun kon da ngeen di tàbbi ci ak bokkaale loolu sunu borom tabaraka wa taala moo ko wax da nga gis koo xam ne dañ la naan lu mu la wax du dañ fekk ay jinne la yor yoo xam ne ñooy ñëw ne ko nangam ak nangam daraa ngay xew ca région sangam boo xam ne yow demoo ko mu ne nangam xew na fu nga wax ko nit ñi ñu xool gis ne loolu xew na fa jinne mën na loolu gis jinne ci boppam ju bon mu ñëw fàdd nit ba noppi ñëw jokkaloo ko jabaram ne boo defee nangam ak nangam mu wér mu ñëw ci ay bokkam ne leen su ngeen ma joxee nangam ak nangam ma faj ko waaye fekk ji lam séq ak ne ja ba tax mu mën koo faj su ñëwee ci moom jinne ji day daal di bàyyi rek mu daal di wér ñu waa ji moo bari fexe moo mën fekk moom deful dara ka ca mooy def waaye la ci léegi séq ak moom comme que ci armée iblis la bokk te lii itteem mooy nit ñi nañ faatuwaale ak bokkaale ndax ñu dem sawara su boobaa lam séq ak moom mooy yàq diineem la ci jëkk boo xoolee charte yi nga xam ne moo nekk ci téere yu bon yooyu am na ci yoo xam ne da ngay waaru sax ci yàlla ay téere la yoo xam ne yu yu yu yéeme la yoo xam ne dañ koy bind di ko joxante ci seen biir te duñ ko tasaare bu dem ci ay nit am na ay xeeti njabar yoo xam ne charte ya ci ci lu leer nañ ñi dañ lay wax ne an takfura billahi taala mooy nga weddi yàlla boo ko defee daal da nga am nangam ak nangam ak nangam ak nangam am na ñoo xam ne duñ la ko wax noonu direct waaye dañuy jaar ak yow ci yoo xam ne boo ko defee jël kaamilu alxuraan yóbbu ko ci wanag tàmbal ko ca biir duus ba wala ca biir maara day taali wala nga jël ko di ca saw wala yu mel noonu charte yooyu yëpp te yemut ci nit ñi di ko wax ci seen làmmiñ njëkk gi waaye dañ ko bind ci ay téere di ko joxante kon sart yooyu la jinne yi di jël di ko jëflante ak jabar bi su ko defee ñu ne kooka boroom xam-xam la yàq na diineem amatul dara ci diine yàq pas-pasi nit ñi moo ko moo ko dese jinne ji di ko defal ay yëf muy jëflante ak doomu aadama yi ñu ne kooka boroom xam-xam la fekk moom diineem la jaay door a am loolu kon lor ji muy njëkk a lor individu bi mooy yàq diineem duutu nekk ab jullit ñaareel ba moo di feebaral ko mën naa feebaral doomu aadama ci mu dëkk ci lalam rek du wér mukk mën naa nekk sabab ci rey ko mën naa nekk sabab ci dofloo ko kon loolu lépp lor la ju mën a jóge ci njabar ñëw ci kaw doomu aadama bokk na ci lor yooyu ñetteel ba moo di mën na ko yóbbee jekki-jekki rek génn këram ak njabootam rek nangi faawa di dox ci suuf si te kenn xamul fu mu jëm fu mu àgg rek ñu defe ne foofa la jëm mu continuer jàllaat feneen dëkk di dox noonu bu yàggee daanaka bu dofutit du soreek du soreek ku dof ah, mën na ko yóbbee ak échec bu dekku doon jàng la wala liggéeykat la boo xam ne ñépp xamoon nañ ko ci ak farlu ci liggéeyam ñépp xamoon nañ ko ci farlu ci njàngam ba man ca raw ñu bare bare bari mu xëy xëy rekk benn bés jékki-jékki mel ni ku amatul benn objectif ci dund gi bàyyiliku cër yi mel ne daal dafa mënatul dara dem ba mu yàgg day mujju bàyyi njàngam bu dee ko doon jàng bàyyi liggéeyam bu fekkee ko doon liggéey la yooyu jeexit yépp njabar dana ko andi eh, ba tey njabar dana yóbbe doomu aadama ji def li nga xam ne moom la sunu borom tabaraka wa araamal comme jóg seqi say jéego dem ca jabar ba ne ko defal ma nàngam loolu sharia daf koo xaraamal te àtte bi dana ñëw ci kanamam su ko defee bu boobaa mën nañ koo digal mu bokkaale mën nañ koo digal mu rendil jinne ya mën nañ koo digal mu def ay moy yàlla comme ni ma ko junje sànk ci gannaaw juróom-benneel ba moo di njabar mën naa indil nit ki li ñu tudde waswaas boo xam ne amut fu mu yem mooy xel mu jaxasoo nga xam ne lu mu dugg lu nekk rek loolu dana ca feeñ lu mu dugg lu ne waswas boobu dana ca feeñ mooy jax-jaxal jaamu yàlla yi muy def sax da ciy dugg su doon jàpp tey mën naa raxas cër bi fukki yoon ba noppi di sikki saaka sax ndax raxas na koom mbir su taxawaloon di julli bu nee allahu akbar dana sikki saaka ne boo demee allahu akbar ji ma def baaxut nekk allahu akbar mën na ko def ñetti yoon wala ñeenti yoon ba juróomi yoon alxaafis ibnu xajar mi ngi wax na gis naa nit koo xam ne waswaas jàpp na ko ba dana jàpp di raxas ab cër benn cër mu raxas ko loo xam ne dana mat juróom-ñeent fukki yoon ba noppi di sikki sàkk ndax raxas na ko déet kon kooku àgg na koo xam ne metti na te loola du yam ci ndax ci njàpp mi la wala ci julli gi waaye ci ay jëflanteem ak doomu aadama yi sax day dem ba àgg ci mënoon na laa yoreel bor jox la ko bu ëllëgee mu dikk na la ndax joxoon naa la ko bu dee ko ñemee yàlla mën naa jël xaalis joxaat ko bu ñëw ëllëgee mën naa ñëwaat wax ko loolu bu dee jigéen ji mën naa toog jàpp ne man de dégg naa ci kàddu goo xam ne ci sama borom kër jàpp naa ne daf maa fase bu laajee ñu ne ko déedéet loolu du passé bu ëllëgee mu ne déggaat naa mu wax kàddu goo xam ne est ce que loolu du passé lenn lu ne rek lu ne da ciy sikki sàkk sikki goo xam ne day dem ba jéggi dayoo du caagi ni nag loolu foo ko fekk fu ne a ko waral ndax am na yeneen yu koy waral waaye liñ bëgg a wax mooy bokk na ci njabar di def loolu loolu njabar dana ko def waaye du moom doo nga koy def nag am na ci yoo xam ne feebar la boo xam ne bu naturel la boo xam ne day dal doomu aadama lée mën a am daal mooy kooku daal dana dem ba nga xam ne laa yastaqimu lahu xaal wala yahdau lahu baal duutu am ak dal xelam duutu ak dal ci ay mbiram dana indil ko sikki sàkka ci diggante nit ki sax ak famille nga xam ne duutu wóolooti soxnaam bu dee jigéen gi duutu wóoloo ci borom këram sikki sàkk yooyu dana jax-jaxal ba tas kër sax faf man ngaa dem ba nit ki bu doon téléphoné sax nga ne ah kii de ragal naa ne bu fekkee jigéen ji la mu ne ragal naa ne sama borom kër jigéen ñi lay téléphoné teel bu dee ku góor ki bu jabaram téléphoné mu ne ragal naa ne keneen lay téléphoné loolu ñu bari lañ koy fiir lañ koy tuddee waaye fiir nag am na fu mu yem day dem ba àgg nag ci jax-jaxal lay mujj doon bu mujjee bu jëlee boolam wala pañeem ne day dem marché sax nga jàpp ne feneen la jëm kii itam boo xëyee di liggéey mu jàpp ne feneen nga jëm te amul benn argument boo xam ne fa la ko sukkandiku su boobaa xamal ne kooku jax-jaxal mi ngi koy dikkal euh, te njabar mën naa dem ba andi loolu mën naa dem ba passé juddoo ca mën naa dem ba gàddaay ay doomam akul njabootam ci kaw ne wóolootul kenn nit ñi baaxatuñ yàqu nañ dem dana dem ba ci ba ci ki ñu tudde xam-xam sax foofu léeg-léeg nga gis koo xam day dem di jàngale kër kër ba mu yàgg mu ne man damay bàyyi njàngale mais ndax li may jàngale nit ñi jëfewuñ ko ginnaaw jëfewuñ ko man kon duutuma jàngale nangam nangam yu mel noonu da nga gis ku dem ba ne damay bàyyi daawa ndax li ma gis xaw ma ko nangam nangam fekk yooyu yëpp ay jax-jaxal yoo xam ne seytaane moo koy def ci bopp nit ki waaye mën naa jaare it ci anam goo xam ne anamu njabar lay doon dana dem ba sababal nit ki bokk na ci sabab yi mooy ko nga xam ne fu mu toll fa ne mi ngi féer féer yi xelam dalatut kum seen ku ne jàpp na ne yow da ngaa ñëw pour lor ko bu seenee ñaar ñuy waxtaan mu ne ñii ci man lañ nekk bu gisee kuree mu ne man lay reetaan xeet yu mel noonu njabar da koy indi doomu aadama ndax seytaane moo koy def sunu borom tabaraka wa taala nee na innahu kaana rijalun min al insi yauduna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa nee na am na ay nit ñoo xam ne dañoo dem wéeru ci ay jinne nee na jinne yooyu dañ leen a dolli ak ragal dañ leen a dolli tiitaange maanaam dalu xel day daal di tàggoo ak ñoom lii daal ay lor la yoo xam ne bu ci nekk mën naa jóge ci njari ci ci jabar ci jabar ab jabarkat dikk dal ci doomu aadama mu am yeneen lor nag yoo xam ne bu jógee moom ci kaw société bi la jëm yooyu nag kenn ku ne nattable wut ne li dal ci kaw société bi day dalaale ci kaw nit ñi itam kenn ku ci nekk da nga ciy am sab cër bokk na ci yooyu am na ci lor yoo xam ne day dellu ci wàllu social lor yu jëm ci société bi jëmmi askan wi ci boppam day dem ba doyadi jëmmi askan wi day dem ba nasax ndax wakkiir lu gëm waroon a def ci yàlla defatu ko njàmbaar ga fit wa ak jom ja askan woowu day dem ba ñàkk ko day dem ba tur wu rafet wa sax da koy ñàkk xam ngeen ne ku xam euh, nit ñi sénégalais yi ni ñu siiwee ci wàllu wàllu wax ne ay jabar lañ ak yu mel noonu ak xamkat ak yu mel noonu di dem ci bitim réew da nga yëg turu Sénégal ni mu ci bitti ngir loolu loolu baaxul ci société bi mel ni société boo xam ne jullit yi quatre vingt pour cent jëm kaw ñu doon ay jullit kenn ku nekk boo waxee ñu ne noonu liñ am kenn amu ko fi mu kenn tollu fa Sénégal lim def fii li li suñ borom def fii ci Sénégal lu mel noonu fu mu toll di ko dégg ci làmmiñ yi waaye boo génnee ci bitim réew yow mi ne ab sénégalais nga la nit ñuy jëkk a jàpp mooy ab jabar nga mooy ab jabar nga yàlla xam ne da génn di dox cim réew nuyoo fi béréb salaamaaleykum waaleykum salaam yow ab sénégalais nga nga ne waaw mu ne dama laa soxla woon nga dikk mu ne ah dama dégg ne yéen de am ngeen xeeti xam-xam yoo xam ne nangam ak nangam xawma ñaata yoon lañ ma ko def am na koo xam ne ci biir màkka la ma topp di wax wax ju mel noonu ma ne ko yéen fii ngeen di wax nii nun dañuy jóg paas ay ay millions ñu ñu dépensé ko ngir ñëw fii ci màkka tàllal sun boroom sunuy loxo di ko ñaan sunuy aajo sun yoroon loo xam ne dañ koy faje aajoy doomu aadama yi kon foofee la ñuy toog yéen nu ngeen mën a nekkee fii bis bu ne ngeen xëy jàkkaarloo kaaba gi di dégg alxuraan yi ñuy jàng fii ngeen di topp ci ay nit di leen wax yu mel noonu mu mu ne dama damaa defe ne yow da ngaa ragal ne man ab agent secret la wala yooyu waaye man duma loolu parce que xam nga ne foofa euh, képp kuñ fa jàpp nga xam ne da léegi ci wàllu njaboot bu dee ci Arabie Saoudite am na sanction yu ñu lay teg yoo xam ne euh, boo ci jógee utoo ko def boo ci jógee bu fekkee jógee nga ca dutoo ko def loola euh, moo tax mu yaakaar ne moom ki mu koy wax mu di ko waaw kooku daa defee ne moom nit agent fekk la moo tax mu de waaye mënut a comprendre nit ki jógee na Sénégal ba noppi daal gëmul lu mel noonu kon tur bi tur bi moom ca bitti yàqu na bokk na ci yi ko gën a yàq ay nit ñoo xam ne fii la ñuy nekk di téléphone téléphoné nit jot ko ci réewi arab yi léeg-léeg Koweït lay doon Arabie Saoudite feneen feneen di ko wax ne man Sénégal laa nekk diw sàngam laa tudd dañ euh, maa dama sama rawaan daf maa jox sa numéro wax ma ne yow da ngaa am ay problème te man maa ko mën a faj yooyu la ñuy def ak ñoom dema dema dem ba siiw ci loolu am na ñoo xam ne doon nañ ba enregistré ci loo xam ne ka ñuy waxal fii la nekk ci Sénégal ñu wëlbati ko teg ko ci ab télévision boo xam ne ci réewi arab yi la nekk la ñuy waxante ñoom ñaar ñu teg ko nit ñi di ko dégg man mi ci sama jëmmi bopp nekk naa Riyad nit téléphoné ma fii ci Sénégal ci numéro boo xam ne numéro Arabie Saoudite la di wax ak man ne ma man maa ngi béréb sàngam ci Sénégal di di dama dañ ma booleek yow mu war laa fajal nangam ak nangam ak nangam ak nangam bi mu waxee ba tudd ma ab dëkk boo xam ne fa la nekk Kawlax sax la ma wax jarut jarut nëbbu ma ne ko ma ni ko déglu rek muy wax ndax crédit moom luñ ci mën a wàññi wàññiwul dara may wax crédit ga di wàññi ko di wàññi ba mu wóor ma ne ñàkk na lu bari nag ma ne ko ndax xam nga ku ñuy wax Oustaz Ibrahima Cissé euh, lépp noo ngi wax arab mu ne ma waaw xam naa ko da koo xam ma ne ko nag waaw waaw ci wolof mu ne ma yow da ngaa dégg ma ma ne ko ragalal yàlla mu daal di mu daal di coupé wax wax ju ñaaw sax la def doora daal daal di coupé eh, liñ bëgg a wax foofu mbokk yi moo di sunu réew mii ak senegal ak fi mu toll ci diine ak eh, ni ñu mel war nañu jéem a góor ba fii ñu toll ñu weesu ko lu bare baree bari ci feebar yoo xam ne feebar yi société la te njabar teg ko sunu askan wi warees naa jiima def lu nekk pour raxas ko te nag musiba mi dafa yaatu yaatu boo xam ne dem na ba ay kilifa diine ngi ci biir buñ ko dul def danañ wut ku nekk ci seenu roq di leen ko defal yàlla xam ne dem na ba ay doomu aadama yu ñuy askane sunna loolu noonu xam nañ ci dara yoo xam ne ñàkkuñu di yëngutu ci lu mel noonu di ko def wala ñu di leen ko defal kon nag su mbir demee ba àgg ko ci biirum réew mbokki jullit yi jaadu lañu xoolaat suñu ngir dellu gannaaw Eh, kon loru social boobu moom leer na naññ bokk na ci lori social ji muy indi moo di ak noonoo akuk kiñaanante akuk mbañante goo xam ne moo koy jur xoola askan wu nekk ci biir genn kër wala ci benn quartier ñu jekki-jekki ne la yow de li la dal ki la ko teg nit ku mel nii la benn daal dafa xees te wala mu ñuul te gudd wala mu mel nangam wala mooy kii xëy di def melokaan yoo xam ne da leen di wóor ne du ñàkk ku mel noonu ku fa am su ko defee kooko bu xëyee day wax ne kii mooy sama noonu lu man lu nekk nag ngir fayantoo digganteem ma kooku dana ko def te boo demee kooku moom yëgut lu xew kon noonoo googu nga xam ne moom lay jur ci biir société bi kooku yàq na lu bari eh, am na ay lor yu muy lor yoo xam ne lori économie la lu jëm ci wàllu koom-koom njabar yàqal nañu ci lu bari danaa ci lim rek li ci mën a lim la ca des des ca ba ci jëkk moo di ne ñu baree bare bari ci askan wi ci sababus njabar dañuy consommer waaye duñ produire maanaam dañuy lekk rek waaye duñ duñ génn dara lu doomu aadama mën a lekk xam nga ne ki xëy toog jël ay bant ak i we ak i der ak i yëf xëy yor ne loolu mooy ab liggéeyam toog fi béréb boo xam ne nit ña di ko fa fekk di ko joxub liggéey mu di leen jox yoo xam ne yu kenn xamut lu mu doon ci àdduna kenn ku nekk xam na ne lii amul njariñ te loola doon mbooloo mu bari ci biir askan wi ñooña la chaque année ñu toog rek lañ di jariñoo nit ñi te jariñu nit ñi dara ba ca des moo di ne ñu baree bari ci sababu su njabar mën naa tax ñu àgg ci ay place yoo xam ne yeeyoo wuñ ko léeg-léeg nag njabar gi njabar lay doon waaye léeg-léeg mu doon geneenu ak njabar ndax am na ci ñi ñuy wax ne ay ñaankat lañ ñoo xam ne nit ki bu ñëwee ci moom ne ko man nangam ak nangam nangam laa soxla woon da koy wax ne ko baax na dana ko bindal dara jox ko wala yu mel noonu waaye fekk na na mbir ma di fajoo du noona day téléphoné ka yor yëf ya ni ko diw day sama ndox ndongo la loo xam ne dama bëggoon nga defal ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam fekk séq naa directeur ba wala njiit la euh, ci kóllëre walla ci jëflante loo xam ne dana tax mu nangul ko càkkutéefam loolu yi kooku day toog toog rek ñu xëy woo ko mu ñëw ñu ne ko ah place ba day ngokk su ko defee day jàpp ne ñaan gañ ko defaloon moo ko indi fii fekk ka ko ñaanal daa ñaan ba noppi téléphoné kon nag jëmm ja jël nañ ko moo xam yeyoon a toog foofu wala yeyowu ko loolu lépp seetluñu ko waaye am na fu mu jaare bañ jël ko teg ko ci place boo xam ne ku ko xool da nga xam ne lii du liggéeyam xamu ci dara itam te day yàq liggéey ba kon kooku day delloo am réew gannaaw waaye ku ko jëme kanam léeg-léeg it ñu jëlee nit ci place boo xam ne moo ko yeyoo moo fa waroon a nekk njabar ñëw def ay pexe ak i dugg ak i génn bañ jële ko ci place booba yóbbu ko feneen foo xam ne du liggéey ko wala ñu dàq ko sax faf mu dem ñu jël keneen teg ko xam ne tekkiwul dara loolu ci liy daaneel économie réew ci la bokk bokk na ci dëgërloo nit ñi fit dëgërloo nit ñi fit ci ñu mën a lekk alali doomu aadama yi ak alali société yi ak alali gouvernement yi am na ci ñoo xam ne lu ñuy tudde protection ci wàllu njabar dañ ne la buñ la ko defalee kenn mënta trouvé yi mbir mënee su laa jàpp saw tuur mënta dem mukk ci tribunal wala yow ci sa jëmmi bopp ngay dem kaso waaw nit ki ragalul yàlla di xëy di liggéey ñi dénk ko alal ju dul jeex nga defal ko loo xam ne gëm loo nga ne ko yow moom ci boppam mënta dugg kaso li fekk mi ngi yore lii aw turam mënta dem ci tribunal li feeg mi ngi yore lii kooku fa mu nekk day jël ci alal jël ko nekk kooku daal di doon musiba moo xam ne moom it ci lii daaneel keesu réew ci la bokk bokk na ci delloo gannaaw gi mu delloo gannaaw am réew ci wàllu koom-koom moo di nit ki ñi gëmloo ko ne ngir mu mën a am ak jëm kanam ci liggéeyam faw mu dellu ci njabar yi ñu defal koy xar nga foofu mu door a mën a jëm kanam bokk na ci li koy tax a échec ci liggéeyam mooy ñàkk dem ci ñooñu buñ ko xasee gëmloo loolu kooku jàppatul na teg ay plan yu baax ak jël ay liggéeykat yu xam liggéey bi ak jaar ci formule ak forme yi nga xam ne ci la doomu aadama daan jaar liggéeyam jëm kanam day jàpp ne yooyu moom sooy bo ñu teg ko fee euh, te dellu ci gaa yooyu yi nga xam ne ñoom boo demee ci ñoom rek da ngay réussir waaye du duutuloo échec ndax noonu ñu koy waxee ne ku ku jëfandikoowut ay xarga fuufu ñu ne la fuuf noonu lañ koy waxee pour bëgg koo tasaare ci biir doomu aadama yi ba kenn ku nekk jàpp ne koo gis muy dund wala mu man di waaxu di dem ak a ñëw wala muy liggéey nga gis ko muy jëm kanam xamal ne am na lu mu laxasoo loo xam ne benn lu muy takk la wala lu muy kër di sangoo la wala nangam loolu moo nekk ci boppi doomu aadama yi kon gëmatuñ ne góorgóorlu ak liggéey ak am jom ak te yu baax ak jëfandikoo ñu xam liggéey ànd ak ñoom liggéey comme ay groupe gëmatuñ ne loolu mooy jëmale réew mi kanam wala société bi kanam wala kër gi sax kanam waaye dañoo gëm ne sukkandiku ci ñeneen ñoo xam ne yu kenn xamut lañu lay jox ñoo ñu ñoo lay jëmale kanam loolu ba tey ci li daaneel am réew ci la bokk ah bokk na ci it mooy freiner mouvement économique yi nga xam ne day am léeg-léeg nga gis jabar bi joxe ay yëpp yoo xam ne ay aada yu bari yoo xam ne nit ñaa ngi koy aada woon jabar yi ñoo koy joxe jékki-jékki ne la bis sàngam kenn waru cee tukki nit ñi dañoo war a tukki circuler dëkk bi ñëw commerce di commerce ñu jël seen marchandise di jël seen marchandise ñii bay mën a toxal seen bay ñii mën def waaye boo nee bisub nàngam kenn du ko tukki nit ñi suñ xëyee bis boobu kenn tukki tukkiwut su boobaa mouvement bi waroon am ci wàllu économie su boobaa day fare naw ci boobu bis te pas-pas yu mel noonu ba léegi mu ngi ci ay dëkk ak ay béréb nit ñi di ko appliquer nga xam ne bu ñu gisee kuy tukki bis boobu dañu jàpp ne moom day xaro am na it ay lor yoo xam ne daf koy indi ci environnement bi ndax xam nga ne yoo xam ne léeg-léeg ay nefarey fas walla ay mbaam wala ay gëléem wala ay doomu aadama sax yañ jële ci biir ñu jël ko dugal ko ci ay butéel def ci am ndox boole ci ay yëf bind yëf tàbbal ci biir nit ki yor ko ñu ne ko yóbbu ko ci sam néeg bu nangam ak nangam amee nga nga ko suy ci néeg bi wala na ko diwoo wala yu mel noonu kooku maar day taali bu nit xëyee diw ko ci yaramam kooku lor mën na caa jóge bàyyi ko ci biir environnement bi sax muy xeeñ rek kooku musiba la der yu yàqu yaag béjjéen yu nëb yaag yooyu yépp tasaare ko ci biiru askan nit di xëy di lal di ko teg doomu aadama yi di ko romb pënd bi di ko jël muy naaw di dem ci li doomu aadama yi noyyi kooku yépp ay musiba la yoo xam ne dafay lor léeg-léeg sax aadama aada yooyu ma doon wax ne jabar yi ñoo ko tosaare ba mu dem ci nit ñi ba fii ñu toll am na ay dëkk yoo xam ne boo fa demee am na bis boo xam ne bu jotee kenn wërta bale sa kër warisu ko buub dañ ko war a bàyyi noonu kenn war koo kenn war koo laal dañ koy tere am na bis yoo xam ne kenn waru caa sangu dañ ko war a bàyyi noonu bis yoo xam ne kenn waru caa wat sa karo yooyu yëpp ay yëf la yoo xam ne daa dem bañ jàpp ne ay aada la ñaan nañ sax di ko tudde ay biddaa waaye fekk ne jabar yi seeni njàngale yuy jàngale ba mu tasaaroo ci askan wi ba sëxin ci la kenn xamatul sax fu mu jógee ñu defe ne ay aada la fekk ci ñooñu la jóge lor ji sax dem na ba ci sport faf xool leen suñ Sénégal gi nga xam ne xameesut fuñ toll ci sport jamono ya nekk ñu ne nun lii nangam fëgg seen i dënn dem nañ ba gëmatuñ ne sport sax nit ko def ciy jëm kanam far ci kaw góor góorgóorloom wala ci kaw dooleem wala ci kaw lenn waaye faaw rek nga dellu ci sëriñ ba door caa sëriñub jabar ba door ca mën a jëm kanam su loola amul doo jëm kanam faf nag loola tardeel leen ndaxte gisaguñu lenn loo xam ne lu am solo loo xam ne àgg nañ ca doonte ñoom ñoo ñu dàq jabar ci ci àdduna ci ak gàttal daal ci anam googu moo dina njabar daal bokk na ci feebar yi gën a rëy ci feebar yoo xam ne dafay dal askan wi su ko dalee tabax biñ tabaxoon askan wi ba mu dëgër moom lay màbb askan woowee daanu daldi suufe ci wàllu xel ci wàllu xalaat ci wàllu liggéey ak jom ci wàllu ak jokkaloo akuk ràbboo akuk bennoo yooyu yépp daf koy màbb nit ko dellu gannaaw mën naa dem ba ay rayante judd ci seen biir ay tuurantey deret ay sàccantey alal la gën a rëy yooyu yépp nag mooy bokkaale sunu borom tabaraka wa taala te askan woo xam ne day bokkaale day doyadi kon loolu lépp ay lor la nu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa mu aar suñ bi ci lépp loo xam ne xeetu njabar la tomb ba ca tegu nag mooy ñeenteel bi kon mooy atteb njabar maanaam chariatul islam nan la jàppe njabar njabar ci boppam dafa xaraam ci loo xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci maanaam jëmmi jàng ko walla jàngale ko wala xam ko sax dafa xaraam waxuma jëf ko de jëfandikoo ko nag moom kéefër la géefër la goo xam ne dafay génne nit ki ci diine lislaam loolu nag am nay tegtal yu bari yoo xam ne yenn yaa ngi ci alquran yi ci des a ngi ci sunna maanaam am na ay adilla ba ci jëkk moo ni sunu borom tabaraka wa taala ci laaya siiw ji ca suratul baqara mu ne wattabaau ma tatlu shayaatinu ala mulki suleyman wa ma kafara suleyman walakina shayatina kafaru yuallimuuna annaasa sixra wa ma unzila ala almalakayni bi baabila haaruuta wa maaruut wa ma yuallimaani min axadin xatta yaquula innama naxnu fitnatun falaa takfur fayataallamuuna minhuma ma yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawji wa ma hum bidaarriina bihi min axadin illa bi idnillah wa yataallamuuna maa yadurruhum wala yanfauhum wala qad alimu laman ishtaraahu maa lahu fi alaxirati min xalaaq wala bisa maa charaw bihi anfusahum law kaanu yaclamuun laay ji ay dalil yu bare ngi ci biir yuy tegtale ni njabar kéefër la ba ci jëkk mooy li sun borom tabaraka wa taala wax ne walakin alchayatina kafaru yuallimuuna annaasa sixar nee na seytaane yi nga xam ne ñooy jàngal nit ñi njéeb njibar ay yéefar lañ kon yéefar kéefar lay jàngale yéefar kéefar lay jàngale kooku mooy mi ci jëkk ñañ yebaloon Haarut ak Maarut ñi leen doon jàngal dañ leen wax ne innama nahnu fitnatun fala takfur yàlla da leen a yabal leen ñoo xam ne dañ leen di jàngal ak njabar ne leen waaye day bu ngeen leen di jàngal njabar gi na ngeen leen waar ba noppi malaayika ñoo far ñu ne innama nahnu fitnatun nun kat danoo ñëw di leen nattu waaye fala takfur bul dugg ci kéefar maanaam bul jàng njabar gi ndax soo ko jàngee da ngay soppi ko yéefar kon kooku leer na nañ ñi ne ak njabar ab yéefar la borom bi tabaraka wa nee na wa yataallamuuna maa yadurruhum wala yanfauhum nee na ñiy jàng njabar ñi ngi jàng loo xam ne da leen di lor te du leen jariñ amut lenn loo xam ne lor kese kese kese moo ca nekk lu dul kéefër waaye leneen loo gis ci bàkkaar yi même sàngara sax borom bi tabaraka wa taala wax na ci alxuraan ne am na njariñ yu ci nekk waaye dafa am ay lor yu bari lor ya gën a bari njariñ ya moo tax mu ne kon araamal nañ ko ci yéen waaye nag kii nag lépp day lor te amul njariñ ndax li ñëw yàq diine kooku dara desatu fa ginnaaw yóbbu na diine ja kooku dara desatu fa mënatu la am njariñ walaqad alimu laman ishtaraahu maa lahu fi alaxirati min xalaaq kooku ci li gën a wér gën a leer ci ne njabar kéefër ci ngéefër la kéefër la ci la bokk ndax borom bi tabaraka wa taala nee na njabar ci boppam boroom amul ab cër fa alaxira amul ab cër fa alaxira amul benn bakkaar boo xam ne nit ki dana ko faatuwaale te amul ab cër fa alaxira bu dul kéefër kéefar daal ko ko faatuwaale moom sawar la dëkk fa lay sax ba faaw te du ko mas a génn waaye bépp bàkkaar bu mu a doon ci àdduna bu bokkul ak kéefar su ko nit ku faatuwaalee dañ koy mbugal après ñu yóbbu a àjjana waaye ki nga xam ne amul ab cër fa àllaaxira kooku moom yéefar rek la mën a doon kon walaqad alimu la man ishtaraahu ma lahu fi l axirati min xalaaq kooku dalil bu leer naññi la ci ki faatu yóbbaale njabar dafa faatu yóbbaale kéefar loolu moo tax amul ab cër fa sunu borom tabaraka wa taala mooy du ma a génn sawara mukk di dugg ajara kooku leer na ñaareelu dalil ba ci sunna la xadisu abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na man iqtabasa ilman min annujumi iqtabasa shubatan min assixri zaada ma zaad nee na ku xool biddiw yi mooy calcul yi ma doon wax ci xam-xamu tanjiim wute ca ab xam-xam boo xam ne lu nar a xew fii ci kaw suuf la nee na kooka day sàkku na xam-xamum njabar nee na nag zaada ma zaada ku la ca ëppale moo la ca ëppale ku la ca ëppale moo la ca ëppale xam nu nujum nag faaw ñu leeral ci e, tuuti moo di ki nga xam ne dafay tegtaloo ci biddiw yi ngir xam penku ak sowu walla mu xam yoonu dëkk ba kooku njabarut loolu wàññiwul dara ki ci wut ab tegtal boo xam ne dafa ne ah liñ miinoon de mooy biddiw bi buñ ma saa jot mu fekk xam nañ ne nawet moom jege na wutal ko ay tur lii ñu tudde ko dëllooñ lii nangam lii nangam loolu bokkul xam-xam tanjiim bi ñu xaraamal kooku mënees na caa sukkandiku moog géographie moog géographie bi ñuy jàng wala lu aju ci xam-xamu jaww ñoo ñoo bokk maanaam nit ki dafa tegtaloo lu leer nañ ñi loo xam ne du baatin du dara waaye xam na ne biddiw bii bu masaan fekk am na waxtu wu jot woo xam ne taw soreetut wala am na waxtu wu jot woo xam ne taw bi léegi mu jeex loola ab tegtal la boo xam ne nit ki daf ca teg tegtaloo waaye firiwul ne daa def ay calcul ba ne nangam ak nangam ci suuf dañoo am ak joxe boo xam ne su nangam amee faw nangam day am kon kooku bi ñuy tere ñetteelu dalil bi mooy xadisu imran ibn alxusayn radiallahu taala anhu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na man tatayara aw tutuyira lahu nee na bokkul ci nun bokkul ci nun koo xam ne da ngay wut gaaf wala ñi la koy wutal aw takahana aw tukuhina lahu wala muy gisaane wala ñu koy gisaaneel gis nga de kon ka koy def ak ki koy deflu aw saxara aw saxira lahu wala mu njibar wala ñu njibaral ko bi ma xenoon ba àggal mu ne wa man ataa kaahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad képp koo xam ne dikkee na ab jibar jóge na këram waaxu ñëw ci ab jibar mu wax ko dara mu gëm lam ko wax nee na kooko na yeesalaat ngëmam génn na ci diini muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ku ko masoon def te yeesaloo sa ngëm sooy boo nga wéet ak sa borom fi béréb nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tuub ne duutuma seqi sama jéego jëm ci jabar li des ci sama dund loolu mooy njariñ la njariñul waxtaan wi nuy waxtaane mooy loolu ku fi jóge nga xam ne ma soon ngaa am lenn loo def lu nuroog loolu muy seqi sa tànk dem ci jabar wala gisaanekat wala xamkat laaj ko daa mu wax la ko nga gëm lam la wax kooko yeesalaatal sa ngëm sa diggante ak sa borom balaa yàlla yóbbu sa bakkan ngay yóbbaale kéefar kon loolu leer na al imaam muslim jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer na ci soxna yonent bi ñoo ko nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun arbaina yawman ku seqi ay jéego ñëw ci ab seetkat laaj ko dara waxul ne mu wax ko ko mu gëm ko de laaj ko dara rek nee na kooku dana am ñeent fukki fan yoo xam ne kenn du ko nangul ak julli julli gum julli it moo ko nekk ca terrain ba di sport ñooyam duñ ko ci bindal benn tuyaaba kooku ñaari xadis la yoo xam ne benn bu ci nekk dafa mat a xam li ko tax a jóg kii mooy nga déplacé ñëw laaj ko rek laaj tontoogu la sax perte nga ñeent fukki fan yoo xam ne loo fa julli baaxul su la tontoo nag wax la nga gëm lam wax kooku génn nga ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee yow nit kii di déplacé di dem ci jabar bi moom lañ àtte àtte yii kon loolu day wane ne jabar bi ci boppam ab yéefar la wala déet kooku mooy ci dalil yi gën wér ne jabar bi ab yéefar la ci la bokk ndax su fekkee kay déplacé di ko laaj mu di ko wax muy gëm kooku ab yéefar la kon moom ci jëmmi boppam taxul ñuy wax tey lii lu ma wattandiku la ndax léegi la nga gis nit koo xam ne day dégg ñuy wax publicité ñeneen jabar ba nangam nangam nangam mu ne naa fa dem rek natt ko ba xam laaj ko ba xam li muy wax dëgg la am déet dem googu di natt ci boppam dansé la ci yow ndax nee na duñ la nangul julli lu mat ñeent fukki fan kon daal ñooña bul jote ñoom dara bul am ñoom wax bàyyi leen fañ nekk bu leen laaj buñ la tontu juróomeelu loolu sax du dalil maanaam euh, waxi boroom xam-xam la rek cheikh islam ibnu taymiya mooy wax foofu saraa boo xam ne dafay leeral at teb njabar mu ne lépp loo xam ne dafa aju ci sinaatu tanjim muy njabar goo xam ne daa aju ci biddiw ak lépp lu ca aju ci loo xam ne nit ko daf cay tegtaloo ngir joxe xabaaru lu war a xew ci suuf ak lépp loo xam ne jote na ak loolu dara nee na loolu nañu xam ne lépp loo xam ne day joxe xabaar nit ka da ciy jële loo xam ne ay xabaar yu muy joxe la yu ñëwagut yu agsee gut nañ xam ne loolu lu xaraam la ci alquran ak ci sunna ak ci dëppoog mboolem boroom xam-xam yi mu ne te araamal nañ ko ci làmmiñ yu mboolem yonent yi yàlla ma sa yónni ci mboolem diine yi nga xam ne yàlla mas na leen wàcce mu ne loolu moo tax nga war a xam ne lépp loo xam ne jox nañ ko jabar bi moo xam luñ ko may la tudd walla ak weexal lañ ko tuddee wala tiraanga lañ ko tuddee wala tur wuñ ko mën a jox nee na kooku xaraam na ci ki koy joxe mu joxe ko waaye xaram na ci kiñ koy joxe jox moom itam mu nangu ko maanaam du alal ju lew mu ne xaraam na ci ki moom këram walla ki nga xam ne dañ koo dénk kër goo xam ne këru waqfu la mu di ko luye nit te fekk kookee xam na ne xeetu njabar la fay def yow mi moom sa kër walla ñu dénk la kër nga xam dañ koo def waqf wala keneen da ko moom wala dañ la ko abal nee na xaraam na ci yow ngay luye koo xam ne xeetu njabar lay jëfandikoo ci foo xam ne yow yaa ko moom nee na wareesu lu ne jàpp ndal itam ñiy toog ci place publique yi nit ña di leen fa romb di fitnawu ci ñoom mu ne war na ci ñi nga xam ne ñooy responsable yi war na ci ñi nekk responsable imaam yéen a ci biir nee war na ci ñoom ak képp koo xam ne am na pexe mu seqi ay jéego dox ci dindi xeex woowu su xase tàbbi ci biir aw askan nee na ñooñu dañ leen a war a woo ñu tuub wala ñu tere leen ñuy dugg ci biir kër yi di leen fekk ci seen biir kër yi di leen woo wala ñuy publicité sax ñu di ko dégg ndax kat ñiy def yooyu ñu dëgër fit lañu maanaam léeg-léeg dañuy wër fu nekk ñu dugg fekk la ci sa biir kër di la di la limal di rebatu bu dee nangam nga soxla bu dee nangam nga soxla bu dee nangam yëmatuñ ci rek toog ci seeni kër nit ña di leen fa fekk waaye léegi-léeg dañuy jóg di dox maag menn mbokk benn bis toog nañ am ku jóg dikk taxaw yor ay mbuusam ak ay yëf di lim xam naa day jéem a xool nit ñi lu mu yaakaar ne moom lañ war a bëgg mu koy nattale ku ci bëgg a dem Italie mën naa la defal nangam ku ci bëgg a def lima lim ay yëf ba àggal te tubay jaa ngi xotti koo xottiku mbokk mi ma toogal mu ne ko xanaa luy joxe tubay de amu ci li ngay lim nii xanaa luy joxe tubéy moom nekku ci eh, kilifa googu nee na ibnu taymiya waxam ci jeexagut nee na wala ñuy dugg ci biir kër nit ñi mu ne su fekkee nag ñi nekk ay responsable maanaam autorité yi nga xam ne ñoo yor pouvoir sañ a digle sañ tere nee na su fekkee ne defuñu loolu danañ dugg ci wax sunu borom tabaraka wa taala kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu nee na aw askan la woo xam ne seenu yàqu dem na ba àgg ci suñuy def lu bon duutuñu ko tereente duutuñu ko tereente kon lu waay man ca fa nga toll ca la nga yor ci pouvoir moo xam pouvoir wax la ci sa njaboot ca sa jàkka ca sa parlement ca fa nga nekk te man faa wax loo xam ne dana tax ñu xam ne lii dansé la ci aw askan loola soo ko waxee sa jaan wàcc na la ca des euh, responsabilité keneen la nee na jaamu xiram jógewut ci lenn lu dul gis mbir mu mel nii toog di ko seetaan ci lay juddoo loolu moom laa chaque ne lu wér a wér la li ñuy sant ci ay nit ci ay rendeek ay tuur ak ay sangook ay yëf-yëfaan yu mel noonu nga xam ne jàpp nañ ne dundub doomu aadama gi ak wërsëgam ci loolu la aju di leen ko defloo nit ñi di ko gis ne ca cell laa chaque ne loolu jaamu xiram googu ci loolu rek ci la juddoo te nun euh, wax dëgg yàlla sunu askan wi buñ xoolee danañ gis ne njabar gi dafa am yu koy yombal ba tasaare ko fi yooyu su ma ci doon lim danaa ci lim ñàkk a jox itte pas-pas ci askan wi pas-pasu lislaam bu wér bu sell jaadu nañu jàngale ko yar ci nit yi def ko ci jàkk yi def ko ci école yi def ko ci daara yi xale bi nañ dugal pas-pasu lislaam ci boppam ci xolam su duggee ci moom yeneen yooyu yépp suñ dikkee duñu am fuñ jaar protéger nañ ko dara du dugg ñaareel ba moo di ak jaxase goo xam ne jaxase nañ ko diggante ab jabar akub sëriñ maanaam sëriñ fi noonu dafa jaxasoo jaxasoo woo xam ne lu jóg lu nekk mën naa doon ab sëriñ mu doon loo xam ne it dañ koo jox image boo xam ne image buñ respecté la buñ ormal la ci biir askan wi suñ xasee ne sëñ ab kii de dafa am gan boo xam ne ab sëriñ la ñu jël pantare jox ko nit ñuy ñëw mu di leen defal ak njabar duñ xam ne kooku du sëriñ duñ xam ne ab yéefar la ma ndax ab jabar la te njabar kéefar la loolu duñ ko xam ñuy dem di dikk tudde ko cheikh sëriñ kon jaxas njaxas loolu am ci diggante sëriñ ak leneen euh, yàqal nanu lu bare bare bare bare ak nag yombal gi ñu leen yombal mbir yi mooy li li ibnu taymiya doon junj sànq ku dikk ñu lëyal a kër luyeel ab néeg defal la nangam defal la yombal nga toog léeg-léeg ñu lay may añ sax bu fekkee ne yoroo fa famille yoroo dara waa kër gi di togg di la jox ngay lekk ngay def say njabar nit ña di la fa fekk amaana yow kër gi sax nga koy publicité borom kër gi di wax naa man de am naa gan goo xam ne moom eh, lu mel nangam ak nangam moom moo ca aay yombal googu ñu leen ko yombalal ci li tasaare mbir mi ci sunu askan wi ci la bokk beneen bi ci des mooy addiaaya al mudallila abra wasail al i'lam presse bi média nun fii nu nekk booy seetlu léeg-léeg da ngay waaru ci yàlla jabar yoo xam ne kenn nattabliwu na ay jabar lañ doyoon na rek ñoom ñi def seeni communication yoo xam ne ñoo bind jox rajo yeeg télévision yi ñuy wax diw sàngam ma nga béréb sàngam ma nga béréb sàngam ñi di ko comme niñ koy defe waaye léegi dafa àgg ci dafa mel ne rajo yi dañuy télévision yi dañuy njëkkante ci kan mooy invité kan ci ñooñ invité ko mu ñëw toog ñi di ko laaj muy wax lam ay man-manam la muy def bu noppee joxe adresse am dem lu cay tegu mbooloo ma dem fekki ko rek kon publicité bu ñàng bu garaaw bu mel noonu ci yàq pas-pasi doomu aadama yi ci média bi nga xam ne moo nekk ci réew mi loolu ci li ko tasaare la bokk loolu moo tax Sénégal dem ba aw turam jaxasoo ci jaxasoo jaxasoo ak njabar ba fu ñu ko tuddee ñu jàpp ne ñooñu ay jabar rek moo fa war a nekk ndax mbir mi dafa dem ba jéggi dayo am na réew yoo xam ne tey bu nit yëgle woon ne moom ab jabar la waxuma di ko wax ci rajo de waaye bu waxoon ak nit ne ko man damay jabar wala damay def nangam joo xam ne boo dikkee ma defal la nangam kooku mën naa daal di dem ci police bu fa gën a jege bu ko yëglee rek moom dañ koy jël si waaw kon nan la nit mën a toogee ci këram bind ab communication yónnee ab rajo wala ab télévision ñi ni diw sangam a ngi nii bu fekkee ne da ngaa am problème ak yoon xam nga loolu lu garaaw mm-hmm. yoon war a def liggéeyam ñu bu dee da ngaa yoon boo demee fa moom da nga bu dee da ngaa am ñu lay topp ci xeetu alal wala jigéen joo xam ne nangu wut a seeg yow wala nangam lim yoo xam ne yu dul jeex la ne boo demee ma nga tablo béréb sàngam numéro kër ga nangam ak nangam ak nangam la kooku bu nekkoon ci réew moo xam ne yoon a fay dox bu ñuy daaneel rek ñuy jëli kooka di ko indi ñu ne ko yow li ngay wax koo ko jëli nit ku nekk ci yoon nan nga mën a dem bay def loo xam ne da koy xettali te fekk moo tooñ kon euh, ab liggéey nekk na foofu boo xam ne bu rëy la ñàkk def liggéey boobu nag bokk na ci li tasaare njabar gi ci suñ réew mi kon jàpp naa ne adamu wujudi sultaanin raadi ñàkk am pouvoir boo xam ne dafay jajji nit ñi ñu dellu gannaaw ci màbb googu xam ne ñu ngi koy màbb société bi jaarale ko ci njabar di màbb relation yi dox diggante doomu aadama yi màbb seen diine màbb seen koom-koom màbb seen lépp loo xam ne luy tabax doom aadama la tabax am réew te jaarale ko ci bunt boobu jaadu na euh, lu mel noonu ñu xeex ko ci lépp lu ñu mën a def ba mu jógee ci suñ société bi wala mu wàññi ba dootu fi mel ni mu fi mel am nag tomb boo xam ne xëy na moom laay daaneele <coughs> moo di euh, saafara ak njabar kim dal loolu sharia islaam yi ci boppam noppiwu ca ndax njabar ci jëmmi boppam kim dal feebar moo ko dal feebar nag kum dal ku nekk <coughs> daa war a faju te it amul feebar boo xam ne ma ni su koo faj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku na li kulli daa in dawa feebar bu mu mën a doon am na lu ko mën a faj waaw ndax dañuy dem ci jabar ba ne ko kaay faj ko mu faje ko ak njabar wala ñu ne kaay ñu seeti beneen jabar mu ñëw faj ko déedéet duñ ko fajee ab njabar duñ njabar di si ko fajee njabar kooku chariatul islamia daf koo xaraamal waaye li ñu tuddee an nushra mooy njabar googu ñu fecc ko ci ay alquran al karim yi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala wàcce lu jëkk sax ñuy àgg ci faj googu nit ki ci boppam dafa war a protéger boppam ci kattanu suñu borom tabaraka yonente bi alayhi salaatu wasalaam joxe na ay ñaan yoo xam ne suba la ak ngoon alquranul karim ci boppam mu yonent bi orienté nu saar sàngam ak saar sàngam ku koy jàng kooku seytaaneeg ñam àndal mënuñu ca dara alquran ci boppam <clears throat> ne wa ida qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axirati hijaban mastura soo nangoo jàng alxuraan ma teg benn barrage boo xam ne day dox sa diggante képp ku gëmul yàlla kon alxuraan ci boppam rek protection la boo xam ne ki koy jëfandikoo njaboot mun taas ci kawam yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag ne jàng leen suratul baqara ak ali imran ci seen kër yi mu ne fa innahu la yastatiuhuma al batala nee na jabar yu mag yi gën a màgg ak seytaane yu mag yaa ginne yu mag ya attanuñ yaari saar yooyu kon dee leen ko jàng ci seen kër yi kon saxoo di ko jàng loolu lu am solo la rawatina suratul baqara rawatina ayatul kursi nga xam ne mooy aaya bi gën a màgg ci alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam nee na ku ko jàng ci ak ngoon da nga mucc ci seytaane ba keroog asmaan di set ku ko jàng ak suba danga mucc ci seytaane ba keroog jant bi so koo koy jeex na jàngal ayatul kursi suba ngoon jàngal fàllax ak naasi suba ngoon kon am nay protection yoo xam ne jullit bi koy jëfandikoo na xelam dal mu dox nag dem yoonam ci siraatul mustaqim suñ borom tabaraka wa taala aar ko mu mucc ci képp koo xam ne kuy jëngu ci yu mel noonu la kon protection boobu moo war a jiitu ci jullit bi dellu ci al alquranul karim jullit yi faw ñu dellu ci alquran di ko jàng d'abord ñi koy jàng ngir am tuyaaba loolu mooy li ci jiitu jàng ko ngir suñu borom tabaraka wa taala bindal la tuyaaba ndax waxoon naa la ci tàmbalikaay bi ne protéger sa mu dëgg la boo ko defee lu baax a baax la waaye na fekk nag mu doon looy jaamoo yàlla su doonee jaamu yàlla goo xam ne dañ la cay bindal tuyaaba kooku gañe nga ñaari yoon ndax yaa ngi jàng alxuraan ñu lay bindal tuyaaba ba noppi dana la aar waaye nag nga wattu nga wattu ne dama jóg jàng alxuraan ngir mu aar ma rek fàtte tuyaaba ji waxu kay yéene lu am solo la ci gépp jaamu yàlla goo xam ne yaa ngi koy def kon jamono yi ngay jàng alxuraan gëmal ne da koy jàng ngir jaamu yàlla da koy jàng ngir tuyaaba waaye xamal ne dana koo xam ne noonu noonu bu yàq la al imaam ibnul qayim nee na li ñu tudde ak nusra mooy faj ak njabar nee ñaari xaaj la ñaari façon la benn bi nee na mooy ak njabar ñu faje ko ak njabar nee na boobu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ne dafa xaraam beneen bi ci des moo di ak njabar ñu fajee ko loo xam ne lu dagan la ci ay ay mocc ay jàng alquran ay muslaay yi nga xam ne yu dagan la te nee na loolu moom lu baax la al imam ahmad ibn hanbal <coughs> rahimahullah dañ koo laaj ñu ne ko ah waaw ak njabar moom eh, faj ko dafa am daal waa yoo xam ne nee na moom day faj ak njabar mu ne ah am na day ci nit ñi ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne nangu nañ ku faj ak njabar ñi ne ko waaye moom day ni muy faje ak njabar day jël am ndox def ko ci cin baxal ko bu noppee daal dana am na yom cay def bu ko seralee jël ki njabar gi daal nuural ko ci biir cin loolu daal di koy génne nee na bi mu waxee loolu al imaam ahmad def nii loxoom kal munkir maanaam mel ne ku weddi loolu ne loola moom moom moom xamu ko waaye noonu sax la ko waxee dafa def noonu wa ma adri mu ne loolu moom xaw ma ko Muhammad ibnu Sirin ñu laaj ko ne dafa am jigéen joo xam ne jabar yi dañ koo teg lu metti ci xeeti mbugal waaye am na waa joo xam ne nee na mën na koo faj <coughs> waaye nag bi mu nee da ko bëgg a faj daa jël paaka daa koy samp ci ay rëdd yoo xam ne da koo ci suuf ba noppi jël paaka bi samp ko ca digg ba tàmbali nag di jàng alquran ndax loolu dagan na al imam muhammad ibn sirin mu ne ma alamu bi qiraati mu ne jàng alquran daal jàngal ko ku feebar kooku moom xawma lenn lu muy wàññi moom maanaam lu baax la wala adri ma alxat wa sikkin waaye nag ay rëdd ak paaka loolu moom xaw ma ko kooku lu am solo la mooy ñu xàmmee njaxas yi am léeg-léeg kii jëfandikoo am paj mu doon alxuraan yi kese kooku mënees na koo nangu waaye nag alxuraan joo xam ne dañ caa jaxase leen ay rëdd ki paaka ak ay xob ak ay yëf yu faan yu mel noonu la ca bokkul moom la ca génn la daganoon moom continuer dagan al imam abdul bar bokk ci boroom xam-xam yi mazhabul imam malik dañ ko ko laaj mu ne daal su fekkee ne lañuy jëfandikoo mooy mocc yoo xam ne yu dagan la su boobaa loola dara nekku ca waaye nag su fekkee ne lu daganut lañuy jëfandikoo wala lu xamee sut su boobaa du dagan kon bokk na ci yi ñuy jëfandikoo ci faj jàng alquran jàng lu ñëw ci sunna moom la ñuy tudde mocc mocc moomu nag dafa am ay charte ngir mu doon lu dagan ba ci jëkk mooy benn mu nekk alquran karim wala mu nekk ci turi yàlla yi ak melokaanam yi sax ci alquran ak sunna ñaareel ba mooy mu nekk ci kàllaam ak arab wala bu dee genn kàllaama geneen kàllaama na doon wax juñ xam maanaam yow mi mocc li ngay wax na nga xam lu mu doon ndax léegi léeg am na mocc yoo xam ne nit ñi dañ koy weccente di ko joxante yow li ngay làkk xamoo lu mu doon hmm? am na yoo xam ne boo ko dee làkk yow mi yow mi koy wax ci yow ci jëm di bopp noona nga ko mokkale waaye xamoo lu mu doon kon kooku kenn du ko moccee ndax xamoo mbokkaal laam la am déet xamoo seytaane ngay woom déet te kenn ku ne xam na ne am na yu bare bari yuñ bind tudde ko turi kenn xamul sax ci wan làkk la faf xamuñu sax ci wan làkk la te loolu mënta nekk tur yàlla wala xamaturu jinne ngay woom déet ñetteel ba moo di mu bañ a fas ne lii muy wax nii wala lii muy mocc loolu mooy faj waaye ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ci lay faj euh, war nañ cee boole ne mocc googu suñ koy def bokk na ci ay chartam ndax ñetti chart yi ma tudd nii alxaafis ibn xajar moo ko tudd waaye ma ne war na cee bokk ñi wattandiku bépp jëfiin bépp jëfiin boo xam ne buñ koy def ci ki ñuy mocc day ànd ak lu sharia tere léeg-léeg nga gis kuy mocc jigéen te nekk ab jaambur ci moom di ko laal loolu bokkut dañ ko xaramal sañu kool mocc amut laal jaam nga la ak ëf waaye ab loxo yoonam newu ci léegi léeg nga gis ku ne day nodd jël gémmiñam teg ko ca noppub jigéen ja te doon ab jàmbur ci moom ne day noonu kooku musiba la baaxul léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy weesu yooyu yëpp ba jàpp ko ci yaramam di daroog moom ak xeeti yëpp yëppaan yu mel noonu yooyu yëpp yu xaraam la yoo xam ne sharia daf koy tere kon ci sarti mocc boo xam ne moccub lislaam la yooyu yëpp daf cay génn ñi door koo mën a nangu ci saxiixu muslim xadiisu awf ibnu malik daf ne nun ca ceddo ga ban duggagut ci lislaam yoroon na suñ xar ga fuufa yoo xam ne dañ daan mocc bi lislaam ñëwee ñu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah noonu kat dañ doon mocc nee na mu ne aridu alayya ruqaakum wax leen li ngeen daan mocce ma dégg daa di ne laa ba'sa bir ruqaa maa lam yakun fiihi shirkun mocc daal wàññiwul dara su fekkee ne bokkaale nekku ca kon loolu mooy garantie bi moo xam ci kàllaama ak arab nga ko wala ci wolof wala ci pël wala ci français wala ci anglais làkk wu mën a doon ak ñaan la waaye nag na mucc ci bokkaale kon yow miy làkk-làkk woo xamut wu mu doon kooku baaxut ndax xamoo li ngay wax bokkaale nga ci am déet kon daa war a doon làkk wala leer naññ nga xam ne lii ngay wax tawxiidu kese la kii ngay ñaan mooy sunu borom tabaraka wa waaye du keneen waaye soo ci gisee benn baat boo xamut lu mu doon rek tegal fa suuf te xam ne loola wóorut ndax xamul keneen la ñuy ñaan wala déet ba al imam muslim génne na ci xadisu jaabir ibn abdullah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu bi tere na mboole mocc yiñ doon jëfandikoo bi mu ko teree waa kër amr yi hazmin ñi ñëw ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ah yow bi yàlla bi day nun de dan doon mocc waaye nag danoo dégg ne da ngaa tere nun dan daan mocc koo xam ne jiite ko fett waaye danoo dégg ne da ngaa tere mocc mu ne leen lu ngeen ko daan mocce nee na ñu wax ko ko fa qaal ma ara ba'san nee na mu ne leen lii ngeen ñaane moom gisuma ci wenn ay man istataa minkum an yanfaa axaahu falyafal képp koo xam ne mën naa jariñ mbokkam na ko jariñ loolu moo tax ba saxaaba ya moccalee ka jaan ja màttoon te mocc ko ci faatixa euh, kooka euh, jox leen ay xar wala ay bëy ak jur daal la lañ leen lañ ko jox mu ne leen bala ma ko sañ lekk damay dem ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba laaj ko biñ dikkee laaj ko mu ne ko loo ko moccee ana loo ko moccale yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko faatixa mu daal di muuñ ne ko ku la xamal ne ak mocc la daal di ne ko loolu yi ñu leen jox na ma ci jox sama wàll kon ñu daal di xam ne loola lu dagan la kon fatiha ci boppam ak mocc la suratul ixlaas fallaxeeg naasiq qul yaa ayyuhal kaafiruun ak ayatul kursi ak alquranul karim léppam ay mocc la yoo xam ne mën naa musal doomu aadama ji li ci am solo mooy ki koy jàng di mocc na doon ku wóolu li muy wax na doon itam ku set na doon ku wakkiirlu ci suñu borom tabaraka wa taala na doon borom tawxid ndax alquran moom jaasi ju ñëw la alquranul karim ci boppam jaasi ju ñaw la waaye nag jaasi itam lum ñaw ñaw ka koy yor di dóor na fekk mu doon ku tekki dara nag boo jëlee jaasi ju ñëw jox ko mbaggum léer léer bi mënu koo yëkkati sax lay tax sa mbagg dëgër nag ànd ak jaasi ju ñaw ji mooy sa yaqiin sa wóolu ci li ngay def sa pas-pas muy sa tawxiid sa diggante ak sa borom sa set wecc ci lépp loo xam ne xeeti tooñ la ak lekk loo xam ne lu daganut la ndax yooyu yëpp day gàllankoor ak ñaan mocc gi ak ñaan la suñ amee daal nit koo xam ne am nañ yaakaar ci ne yooyu daje na ci moom mu jël alquranul karim mocc ca amuñu sikki sàkka ci ne loola la muy mocc day wér yàlla na sunu borom tabaraka wa taala defal tawfiq lii ak la ci bunt boobu eh, des na lu bare bari loo xam ne waree soon na ko mën a wax ci bunt bi waaye mel na ne loolu la waxtu bi maye ndax biñ tàmbalee léegi mel na ne mat na waxtu ak genn wàll te mel na ne diggante feeg muy jeexit genn wàll moo ci des su fekkee ni ma jàppe ne programme bi noonu la noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu musal nu musal leen ci lépp loo xam ne xeetu njabar la ci jéem koo xam ak jéem koo xamlu ak jéem koo xamle ak jéem koo def wala jéem koo deflu te aar na ci ba e, nu mucc ci lépp loo xam ne luy lore la te jóge ca loola te xiir nu ci alquranul karim nu jàng ko ngir tuyaaba jàng ko itam ngir mucc wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bismillah donc di kon cinq yu jëkk yi rek waaw voilà kii ni mu laajee dafa ne maamaana as-sihrul akbar wa sihrul asghar euh, njibar bu mag ak njibar bu ndaw est-ce que du shirk la doon laaj waaw kooku daal mooy mooy bu jëkk bi bon ñaareel bi mooy lan mooy kumpa maam wal xayb bon ñetteel bi ndax dina dagan ci jullit émission yooyu ñuy def ci télé bi te mu aju ci njibar ndax dina dagan mu seetaan ko ngir mu xam seeni wax ndax mu mën a bu fa jógee mën a moytu baa moytuloo nit ñi maanaam pour mu xam seeni mbir ngir mu man leen xeex mu ne ndax loolu dina dagal mu ne ndax xam lasraar loolu njibar la yan ñaan ñooy dindi njibar xanaa loolu ustaas laaj wax na ci lu yaatu ci exposé bi bon mu ne euh, day faral di benn waay buy jàngale alxuraan nekk ci gox mais bu fekkee ne am na ku soxnaam mucc am doom mu dem ci moom ne ko bindal ma toqantal kooku bind jox ko mu ne loolu ndax lu gën ci njëbaam dégg voilà juróom yooyu mooy njëkk nga ci bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah eh, ndax njabar gu mag ak gu ndaw xëy na bu fekkee ne loolu la jubloo laaj dëgg dëgg dëgg loolu moom xaw ma ci njabar moom gu mag ak gu ndaw yëpp yu mag la bu dee bokkaale la jubloo wax nag xëy na mën na koo leeral ci ci laaj bi bu baax a baax eh, bokkaale moom am na gu mag ak gu ndaw bu mag gi moom mooy gi nga xam ne day génne nit ki ci lislaam bokkaale gu ndaw mooy koo xam day yàq jëfam lu mel ne ngis tal euh, alxayb maanaam kumpa mooy loo xam ne lu nëbbu la lu nëbbu nag ñaari xeet la am na loo xam ne yow la nëbbu yow nit waaye keneen xam na ko maanaam sa mbiri bopp yi nga xam ne yow rek yaa ko xam ki nga dendal xamu ko fii nga toog nii li nekk sa poos sax li nga xam ki ci des xamu ko kooku bu la ci moom maanaam lu kumpale ci moom kooku la ñuy tuddee alxaybu almuqayyad mooy boo xam ne daal dañ koo tënk am na loo xam ne xam na ko waaye am na loo xam ne xamut alxaybul mutlaq nag beneen xaybu bi mooy xam lépp kooku mooy li nga xam ne yàlla rek moo ko jàmm qul laa yaalamu man fi samawati wal ardi alxayba illa allah ñi nekk ci asamaan ñi nekk suuf ñëpp kenn xamu ci xaybu maanaam kenn xamu ci lépp ku dul yàlla kenn ku nekk am na yu lay jege yoo xam ne xamoo ci dara la ci gën a jege rek mooy mooy sa génn àdduna sa dee ay xamuloo kañ la xamuloo fan la xamuloo nan la te loolu mooy la gën a jege nga xam ne mu ngi ci sa kanam bés bu nekk nga seq jéego jëm ca jéego bu am solo ñaar fukki waxtoo ak ñeent vingt quatre heures yu nekk gën nga koo jege sa dee waaye xamuloo fu muy doon ak kañ la ak nan lay amee. kon kooku mooy li gën a jege nit ñi te xamuñu ko euh, sun borom tabaraka wa rek moo ko xam ndax dagan na seetaan euh, programme yooyu yi nga xam ne dañ ci invité jabar yi ñi koy seetaan ñaari xaaj lañu koo xam ne xam-xamam demewul noonu ci diine pas-pasam itam àggul fenn fi kooku bu ko seetaan mën na caa loolu ndax mën na faa déggee loo xam ne dana ko tiitlu mu jël ko wala mu gëm ko am na koo xam ne nag weesu na di am benn jeexit bu koy lor ci yoon moom da koy seetaan ngir critiquer ko ak leeralal nit ñi la ci nekk ci ay njaaxum ku mel noonu kooku lay dagan ci moom mu seetaan ko lépp lu baaxut lu mu mën a doon itam noonu rek la demee am na koo xam ne bu ko seetaanee mën na caa loru kooku dañ ko koy tere am na koo xam ne bu ko seetaanee mën na koo leeralal nit ñi la ci baaxut kooku su boobaa day jaaru ci moom mu jéem a xam loola ngir mën ko jot li xam-xamu lasraar lasraar bu ñu ko xam ne mbóot lépp loo xam ne lu nëbbu la rek lu ñuy nëbbu te bëgguñu mu feeñ xamal ne bokkul ci diine lislaam lislaam léppam dafa leer dañ ko war a mën a jàngale ci jàkkee ca min baree ca conférence yi ñëpp dégg ko xam ne lii lu leer nañ la waaye lasraar mooy ay mbóot yoo xam ne dañ koy làq ci suuf di ko joxante ñu naan daa am ay sax ak ay ndigal ak ay yëpp yu paal mel noonu foo ko dégg xam ne loolu bokkul ci lislaam nit ñi ñoo ko créé seen bopp te du mën a baax su dee ci buntum njabar rek moom lu bari loo dégg ñu naan ilmul asraar njabar la waaye du leneen euh, bind toqantal kooku soxla moo xam kay bind la muy bind alquran lay bind wala leneen yonent bi sallallahu alayhi wa li mu jàngale ci kuy door a juddu mooy su fekkee ne am nañ tàndarma moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam day daana sàqamit tàndarma ca gémmiñam gu sell ga génne ca jox ko liir bañ ko andil loola doon la muy jëkk a su ko amul nag te am lem lem mu jiitu ci gémmiñu xale ba loolu mooy la gën amma nag ñuy bind ay ankara ay daag ay yëf di ko jox di ko raxas di ko ko jox mu di ko naan ak yooya la ca ay microbe ak ay yëf lor mën na caa jóge dem ca liir ba mu teggee fa xiibal faw wala toskare mën na ko caa fekk te duñ xam ne loolee ñu ko bindal moo ko ko teg loolu lor yaram la waaye bu dee ci wàllu diine itam loola dafa saxut kon yu mel noonu yu ma tawattandiku Euh, defe naa bu dee ay lu jëm ci tere njabar ak yu mel noonu kooku moom ni ko imaam waxee ñëw na ci biir conférence bi defe naa waxtu bi jot yem ci képp kon wasalallaa euh, du ñàkk euh, li des ci question yi suñ mbokk Omar mën na koo jël am na yeneen i jotaayu laaj ak tontu yoo xam ne yi mën a yaatu la ba public bi mën koo seetaan yooyu du ñàkk mu tànn la ci mën a jàll jàllale ko ci biir incha allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله وسلم على نبينا محمد jazakumullah xayran yaa jazakumullah xayran yaa jazakumullah